li waraloon ndaje bi tey mooy dañu amoon lu ñu tuddee projet projet nag xëy na ñu ngi ma gën a dégg wolof dañu ma ko tekkil euh, boo xam ne def na ñetti at projet bi nekkoon pour jàppale xale yi nga xam ne dañuy dund ak doomu jàngoroy VIH projet bi daf ñu dimbali ba nga xam ne lépp loo xam ne ki nga xam ne dafay faj daf ko war a xam projet bi dimbali nañu ko bañ am mooy li ñuy wax naa référentiel de de formation mooy lépp loo xam ne pour former nit ki la pour tënk pour pour euh, euh, kii ko la tàggat ko ba mu gën a xam lan mooy jàngoroy VIH ba mu gën a xam naka la ñuy fajee jàngoroy VIH bu ko xale amee loolu projet bi daf ñu daf ñu daf ñu dimbali ñu am projet bi tamit dafa jàppale xale yi nga xam ne dañuy dund ak VIH te néew doole. mu jàppale leen ba nga xam ne ku daan yow faju daf lay rembourser transport mu jàppale leen ba nga xam ne seen i bilan seen garab yi nga xam ne du ARV yi programme bi joxe projet bi jàppale leen ba ñu am donc projet bi loolu la fi nekk woon ñetti yëpp yi fi def ñu wax problème dépistage moom mooy ñu gis xale yi nga xam ne dañuy dund ak doomu jàngoro dañu gis ne Sénégal euh, bu ñu waxee ci téeméer bu nekk ñi ñi ñu gisagu mataguñu juróom fukk mhm. mooy genn wàll gi gisuñu leen kon loolu bëri na te xale yaa ngi fi suñ leen teelul a gis dañuy dañuy feebar su boobaa seen njaboot dañuy def ñaari fan ñett yu ne yóbbu leen hôpital ndax dañuy daal nekk ay xale yoo dañuy faral di xiibon te bu buñ leen teelee gis nag garab yi am na fépp ci Sénégal muy centre de santé muy poste de santé garab yi am na fépp ci Sénégal garab yi kenn du ko jënd garab yi tànk nit ki mu ngi koy jël feebar yi bu ko tëral du ko am donc garab yi kon am na ñuy ñaan euh, wéyjur yi nga xam ne xëy na dañuy ragal turu feebar boobu ba nga xam ne soo leen waxee kaay nga di bis sa doom ñu ragal ñu xam ne que ne feebar boobu léegi bu ñuy faj la am nañu garabam garab bi gratuitement lañ koy joxe centre de santé poste de santé yëpp am na te su ñu teelee gis xale bi mu ne am na ko ñu teel ko faj da koy dimbali ba nga xam ne dana màgg kon moromam yëpp dem jàngi ko moromam yëpp tekki ko moromam yëpp dund ba ba ba tere ay wéjoon kon moromam yëpp ñu ko ñëpp di ñaanee projet bi jën na ay en charge lu lu tolloog euh, junni ak juróomi téeméeri xale yoo xam ne ñu woon ci juróom-ñeenti région ci Sénégal alors gis xale yi xam nga xale du indi ko hôpital xale wéy juróom moo ko indi hôpital donc ñun dañuy wax rek pour wéyjur yi indi seen doom yi hôpital te ku indi sa doom hôpital su la waa hôpital ñi naan sage-femme infirmier wala docteur bi gisee xool sa doom ne la ndax mën nañ ko defal test bi nga nangu ndax ni ñuy defee test jabet di jël mag ñu xoolal sa tension su nekkee xale ñu xoolal la drépanocytose xoolal beneen feebar xoolal la beneen feebar noonu lañu war a nangoo ñuy xool VIH ci deretu xale yi tamit ndax feebar la boo xam ne su ko xale bi amee suñ ko teelee gis faj ko comme ni ma wax sànk rek day màgg ci jàmm li jàng ci jàmm mën a tekki teral ay waajuram